ki nga xamanteni modi jakku di mom nak moy responsable bobé convoi dañuy téwul ay cadeau après ñu dikkaat ci plateau bi day te convoi bi dafa am ñu koy encadré muy police ak gendarmerie ñooñu dañ ñëw pour jàppale ñu ba ndëkk ñun nañ leen yombalal seen liggéey loolu li koy indi rek mooy ñu bañ kenn yéeg ci kaw oto yi kenn bañ a langa ci oto yi te ndëkk ñu ànd di wax ak oto responsable oto yi ñii nga xam ne ñoo ànd oo taalibe yi bay ñëw ñu wax leen ne ñu ànd ak dal chauffeur yi tamit oto bu ne am na responsable responsable bu ne na nga wax ak chauffeur bi nga xam ne yebul ay xar ay ay nit la yëpp te dafa am fu ñuy jëm ñu ñaan rek yàlla na yàlla yóbbu ñu si ak ñuy wax nag ne départ bi ñu ngi koy def fii ci place obélisque fa mu daa am BRT bi moo tax ren yobbu ñu ko foofu ñuy ñaan yàlla nag foofu 8 heures la heure départ bi waxuñu 8 heures mu fekk fa nit ñi dañ ne 8 heures la ñuy départ donc 7 heures et demie au plus tard auto yi wara ñew yépp nañ ñew taxaw jël place tok xaar heure départ bi te ñu déglu ñi nga ne ñoo yor organisation bi bu joggé fofu mu ngi jaar ci koloban euh, yek pont koloban jël autoroute bi bu jëlé autoroute bi ba ba lobat fall mu dugg pikine bu duggé pikine génn mu ngi génn wat encore ci icotaf fofu génn wat croisement pikine parce que ay travaux lañ wax ne moo am foofu moo waral loolu pour ren ñu jàpp ko noonu bu génnee foofu mu dem jël waa Caaroy bu jëlee Caaroy jël waa Pikine jël waa jël waa Tëngéej bu jëlee Tëngéej jël yenn jël sendu côté boobu yëpp mu jël leen bu demee ba VCN ba voie de contournement bu Thiès bi foofu la ñuy duggee bu duggee ba foofu bu fekkee may nañ ñu ko foofu am nañ fa taxawaay bu ñu fa daa def bu fekkee jot gi may nañu ko ak ni ak yoon wu ñàkk xat wi may nañu ko ñu may mag ñi foofu ñu wàcc waajaat ñu préparé waat yoon buñ demee ba foofu ñu ngi ñaanaat gendarme yi ak policier yi nga xam ne ñoo ñu yoral yoon wi buñ demee sortie sortie VCN ba nañ ñu dimbali foofu nañ ñu dimbali foofu toujours li am foofu lay amee ñu dimbali ñu foofu canaliser ñu ko ba convoi bi mën a jàll foofu bu jàllee dem ba Tivaouane mu ngi jaar si tali boobu Diop si defar foofu la oto yu ndaw yi di jaar buñ jaaree foofu oto yu mag mën nañ continuer dugg Tiwaawan boo ngeen duggee Tiwaawan ku nekk mën nga dem sa dal mais oto yu ndaw yi ñu bàyyi leen ñu continuer buñ demee ba couragement bii nga xam ne moo jàkkaarloog Aly Serigne kër si voiture présidentielle yi foofu la ñuy jaar buñ jaaree dem ba fii nga xam ne mooy kër père fii nga xam ne foofu mooy kër sëñ Moustapha Al Amin foofu la convoi bi di yem ñuy daayiman siyaare ay réew mi bul digal ci waa moo ngi noonu mu nekkoon ki nga xamante ni moom moo di Jackou Diagne euh, nekk responsable convoi bi nga xamante ni nag euh, moom la ñuy faral di amal su ziar général bi euh, daanaka ñëwee moom nag mu doon dikkaat un ci itinéraire bi nga xamante ni incha allahu rabbi moom la ñu fas yéene jël nag ci dimanche dimanche googee ngir mën a egg ci dëkk bu sell boobee ci Tiwaawan dégg ngeen fi nga xamante ni nag foofee la ñu fas yéene déparé muy centenaire waaye itamit heure bi nga xamante ni moom la ñu convoqué li nga xamante ni moo di daayira yi waaye itamit bàyyiloo na xel bu baax a baax daayira yi yenn ci ay ponk yoo xamante ni itamit jàpp ne nag bu nu ko moytoo rek daanaka euh, liggéey bi euh, dana mën a daal di euh, gën a yemb liggéey boobee ngir mu gën a yemb ba organisation bi nag ñu daal di koy def ci anam boo xamante ni bu gën a jaar yoon lay doon moo tax mouvement bi nga xamante ni moom moo di action daara ji daanaka koo nag ci keppaar sëriñ ma suuf si borom daara ji action daara ji moom itamit boo ne koskaas rek daanaka moom nga ciy teg ndax daanaka liggéey yu ni mel lay amal itamit ci dëkk bu sell boobee ci Tiwaawan ci dem ci ay événement moo xam ay conférence ak yu ni mel ak ay gàmmu ñoom itamit euh, daanaka ziar bi at mu ne nag dañ ci euh, bàyyi ñoom itamit seen waar ànd ci ak euh, li nga xamante ni moo di waa COSCAS ñoom itamit ni ko COSCAS di defee ñoo ngi amal seeni réunion di waxtaan di saafante di déggante waaye itamit di teg ay stratégie yoo xamante ni a mën a permettre ñoom itamit ñu mën a sóobu bu baax a baax ci li nga xamante ni moo jëm ci ziar boobu waaye itamit amal ci ab organisation bu mucc ayib xamante ni moom Khalifa Mbaye nek président wu organisation bu action daara ji daal di def ben communication par rapport ak euh, ziar général bi waaye itamit daal di laas laas waale li nga xamante ni un appel dañuy dem sétane la la vidéo après on revient sur le plateau